transformation mooy fexe ba conserver lekk bi mu dund te góob bi du du changer. mu ngi waxaat tamit ne wa anharun min asalin musaffa am na ay dex ci ay lem yu ñu filtré te ku ne xam ne tamit filtration bokk na ci euh, étape bu gën a am solo ci transformation. deuxième bi mooy beneen aaya bu nga xamante ni alxuraan mu ngi ko ciy wax suñu gisee soow pour mu bañ a changer dafa am lu ñu koy tuddee lu ñuy wax amalatul bastara maanaam dañ koy jël. def ko ci benn degré tàngoor bu ndaw après génne génnewaat ko parce que soow dafa riche bëri na ndox bëri na ay éléments noonu la ko bactéries yi soxla kon yàlla mu ngi koy junj foofu ci dex yi nga xamante ni préparé ko pour pour aljana troisième bi yàlla mu ngi waxaat ci suratul insaan al aya 17 verset 17 mu muy wax foofu noonu wa yusqawna fiha ka'san kaana mizaajuha zanjabila nee na waa aljana dañ leen jox ay naan yoo xamante ni ay boisson yoo xamante ni goût bi jinjeer lay doon zanjabil mooy jinjeer kon foofu tamit mu ngi utiliser benn méthode boo xam ne méthode bu moderne la sax yàggut a dugg ci transformation mooy defar lekk jox ko beneen guu beneen guu boo xam ne du du guwam instant bii nii mën nañu am formage bu saf soble wala fromage bu saf tamaate wala fromage bu am beneen beneen guu te yàlla fi dafa utiliser boisson ba pare indi fa massage maanaam loo xam ne da nga ko defar ba pare yokkal ko beneen guu zanje bi lan foofu mu ngi ko wax ci suratul insaan bisi mujj nag mooy aussi même ci suratul insaan waxaan na fa ne innal abraara yashrabuna min kasin kaana midaajuha kaafura jaamu yu baax yu baax yi dina leen nàndal ci kaas boo xamante ni guub bi kaafoor lay doon kaafoor tamit bokk na ci parfum yi ëpp yu ñu ci ci alimentaire beneen aaya bi nga xamante ni nag foofu la ñuy mujjalee mu ne allahu nuuru samawati wal ardi masala nuurihi ka miskaatin fiha al misbaax almisbaaxu fi zujaajatin azzujaajatu ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiya yakaadu zaytuha yudi wala lam tansasuhu naar foofu ban personnellement dama fi dama si yéemu ndaxte yàlla dafa tuddaat beneen méthode bu bees boo xamante ne yàggul a dugg ci agroalimentaire mooy contrôle qualité maanaam yematuñ léegi ci defar alimentation bi nit ñi mën si dund mais dañu egg ci moment boo xam ne dañu naan alimentation bu am qualité muy wax ne di misaal boppam mu ne allahu nuru samawati wal ardi yàlla mooy leeru asamaan ak suuf di misaal leeram ne mu ngi mel ni làmp boo xam ne ni dafa nekk ci biir làmp ñaari làmp yu nekkaat ci benn biir verre verre bi mel ni benn planète buy tàkk loolu lépp mu ngi mu ngi misaal leeram mu ne nag verre bi làmp bi nga xamante ni mooy tàkk noonu yuuxadu min shajaratin mubarakatin zaytuna ñu ngi koy taalee ci diwu olive te ku ne xam ne olive garab goo xamante ni xam na bëriwut Afrique mu ngi ëpp ci yeneen dëkk yi dañuy lekk ñam bi ba pare jël xoox bi nal ko génn si diw te loolu transformation transformation la mais yematul foofu mu ne yakaadu zaytuha yu di u walaw sa tamsashu naar diw boobu dafa yegg ci qualité foo xamante ni même bu ko safara laalu laalulee sax day day tàkk ku ne xam na ne suñu làmp diw yu njëkk yi da ngay biis taal nga taal buum bi mu tàkk leer mais nee na diw diw gi egg na ci set goo xamante ni ak qualité boo xamante ni su ko safarut laalul sax dafay far noonu rek tàkk mu waxaat ne wa tiini wa zeytuun mu waat ci tiin ak zeytuun te tiin mooy gën zeytuun mooy olive bokk na si ñaari matières yi nga xamante ni ci la njëkk a euh, ci la transformation soppeekoo parce que zeytuun dañ ci daan defar diw comme ni ko Yonent sallam waxee kulu kulu ad-dihna wa bi bihi joxe na ko pour day foo am jàngoro nga jël ko nga diwoo ko ba pare wa tiin tiin di nekkoon gën gën goo xam ne dañ ko daan jël di ko transformer parce que gën dafa bëri sucre dafay am énergie dañ ko daan jël di ko transformer wowal ko ba mu wow bi nga xam ne dina mën a jugee si Afrique dem ba ci jazira al ara al arabia ci la si suñu jugee ci boobu nag ñu dem ci beneen aaya boo xam tamit dafa laal ju wax microbiologie kenn ku ne xam na ne transformation mënul am sans microbiologie ndaxte comme ñun ni ma ko waxee sànq ni ñuy soxlaa dund noonu la tamit lañ nekk ay rab yu sew yoo xam ne mënuñu leen gis mais dañuy soxla comme dund bi ñu soxla rab yooyu faaw ñu jàngal leen maîtriser leen xam na la ñuy aaroo si ñoom loolu la ñu tuddee microbiologie mu nekk xam-xam boo xamante ni yàggul lool tax lool taxu ko yàgg noonu yàlla mu ngi wax ci suratul yusuf al aya 47 qaala tazrauna sabaa sinina daban fa maa xasattum fa zaruhu fi sunbulihi illaa xalila mimma taakuluun seydinaa yusuf ba mu géntee dëkk bi dëkk ci bekkoor ba buur ba géntee afwan dëkk ba nekk ci bekkoor mu indi seen naa Yuusuf pour mu firi ko gént ga mu ne ko dangeen ngeen bay juróom-ñaari at yoo xamante ni dëkk bi day naat ngeen teg si juróom-ñaari at yoo xamante ni dëkk bi day bekkoor moom lan la leen joxoon jamono jooju moom lañu dénkoon lu jëm ci wàll dund alimentation mu ne leen juróom-ñaari at yi li ngeen si bay dangeen koy bàyyi si gattax bi bu leen ko dindi foofu ñu ñu jublu xam xam yaakaar naa mooy benn façon dugub la bi nga xamante ni moom la ñuy defaree farine lu si ëpp mooy bele bu leen ko dindi bàyyi leen ko si si si biir gub bi tuuti rek li ngeen li ngeen di soxla ngeen si ngeen si génn parce que suñ ko bàyyee ci gub bi dañ koy isolé ak bactéries yi duñ ko mën a attaqué te buñ ko attaqué dañ koy yàq balaa juróom-ñaari at yi di passé foofu alxuraan mu ngi junju ilmul microbiologie mooy xam-xam microbiologie te ku nekk xam na ne transformation yi ñetti xam-xam yooyu ñoo ko seq mooy contrôle qualité ak microbiologie kon bu ñu xoolee bu ñu jàngatee dinañ gis ne alxuraan yamul rek ci tudd transformation mais dafa dudd ci ay détails te li ci gën a yéeme mooy dafa wax ba wax ci ay xam-xam yoo xam ne bu yàggul rek lañ ko lañ ko soog ajouté di ko commencé di di jàng ci euh, alimentaire mbokk yi bu ñu jugee ci loolu ñu dàll si suñ troisième point bi mooy nag jot na ñu xam lan mooy alimentaire bi nga xamante ni alxuraan junj ne ko bi nga xamante ni tëgginu doomu aadama dafa lënkaloog moom ba nit ki mënul dem sans moom xoolee. dund dafa nekk loo xamante ni wax na ko sànq dafa nekk ci matière yu mënul ñàkk yoo xam ni ki da koy soxla parce que lépp lu ñuy lekk rek mu ngi ci diggante protéine wala mu nekk ay lapide wala mu nekk carbohydrate wala mu nekk ay vitamine wala muy nekk ay ay sel minéraux nga xamante ni mooy représenté ci gàncax bi ñu koy tuddee micro élément wala macro élément nga xam ne da koy soxla pour équilibre loolu nag mooy tollook ñun ci al insaan su ñu xoolee mi euh, transformation dafay dafay veiller ci jël dund changer ko liggéey ko jëlee ko yóbbu ko ci beneen anam pour lan pour ku nekk mën ko utiliser am na ñoo xamante ni mënuñu lekk dara waaye mën nañu ko naan kon bu ñu jëlee firu bi yóbbu ko ci yóbbu ko ci jus danañ ko mën a utiliser am ñoo xam ne du naan jus mais mën nañu lekk confiture kon bu ñu jëlee firu bi transformé ko yóbbu ko confiture danañ ko mën a utiliser am na xale yoo xamante ni seen développement physique eggagul ci mën a ñu mën a jëfandikoo yenn façon lekk yi mais mën nañ ko transfert def ko ci anam boo xam ne dañu ko mën a jëfandikoo am na ñu feebar ñoo xamante ni seen yaram mënul utiliser yenn yenn euh, dund yi ci benn volume bi mu am mën nañ ko transformer def ko ci méthode boo xamante ni dina ko mën a jëriñoo xam-xam boobu nag di xam-xam boo xamante ni dafay basé wu ci ay yeneen xam-xam yu wuute daanaka lépp loo xamante ni matière science la transformation da koy utiliser pour mën a dem dina soxla mathématique pour calcul parce que war ngaa calcul éléments yi du dugg war ngaa calcul humidité bi nga xamante ni moo fi nekk war ngaa calcul numéro pH bi normal bi nga xamante ni bactéries yi ñemewuñ ko war ngaa calcul température bi nga xamante ni ci nga ko war a stocké ba du gaaw a yàqu war ngaa calcul durée bi nga xamante ni ci lay yem kooku mathématique dafay ñëw suñu demee ci chimie mooy ilmul war ngaa jàngat matières yi parce que bépp matière boo xamante ni étranger la waru nekk ci lu ñuy lu ñuy lekk parce que matière bu ñuy lekk ak matière chimie amuñu relation war nga ko saytu pour contrôler xool ba xam am na lu ci rax te bokku te bokk ci war nga xam tamit yan matière ñoo mën a ànd ak yan matière ñoo mënta ànd foofu chimie dikk na nga dem ci sànq maa ngi koy wax microbiologie mooy dafa am ay rab yu sew yoo xam ne yàlla da leen bind comme ni ñu bindee ñuy dund waaye seen volume egg na ci tuuti waaye foo xamante ni mënuñu leen a gis si bët suñu bët faaw ñu utiliser li ñu wax microscope pour mu mën a yokk seen volume multiplier ko ba mu rëy ba nga xamante ni dinañ leen mën a gis kon faaw ñu jàngat ko bu baax a baax ndaxte su ma defaree li ma defar ba kooku ni ma soxlaa man lekk bi noonu la ko soxlaa da siy dund da siy multiplier wu te am na si yoo xamante ni da ciy bàyyi benn matière boo xamante ni soo ko lekkee mën na def lu ñuy wax intoxication maanaam atasam moom alxiza alxiza yi mën na egg sax ci daraja boo xamante ni mën na faat bakkanu doomu aadama ñu jugee fa dem ci li ñuy wax xam-xamu physique mooy ilmul physiya nga xam ne ni booy transformé di nga calcul volume yi di nga calcul contra contra contraction yi nga xamante ni moom mooy am concentration yi nga xamante ni mooy am ci solution yi ngay composé foofu physique day ñëw mu nekk xam-xam boo xamante ni dafa basé wu ci yeneen xam-xam yu bëri pour lan pour transformer. dund jëlee ko ci benn suura maanaam benn melokaan yóbbu ko ci beneen beneen melo melokaan am ji nag ay ay hadaf hadaf yi mu ci jublu mooy ñépp mën see jët comme ni ma ko junjee sànq mu mën a gudd fan mu mën a gudd fan parce que lekk boo ko transformé dina mën a gudd gudd fan dina fi mën a nekk moment yépp parce que ñun par exemple da ngay gis ne mango su tuuroo rek mango tuuru na su jeexee gisatuñ ko yeneen fruits yi tamit noonu mais su fekkee ne appliqué na tentation mën nañu continuer di am mango ci méthode ci diir bu gudd du du saison am rek mën na passé saison am teg ci ay weeri weer ñu koy am teg ci ay yeneen weer weer ñu am ci ay produits yoo xamante si moom lay moom lay jugee. donc kon mu nekk ay théorie ak ay pratiques yoo xamante ni yépp dafay liggéey ci am dund am ko ci suura boo xamante ni dafay nekk suura salima maanaam. amul bactéria amul lépp loo xamante ni dafay gaañal su ko lekkee en même temps tamit mu denc ko dencir boo xamante ni dina guddaay dina guddal fanam ba nga xamante ni consommateur bi dina si jot ba consommer ko te du am benn changement ba pare mu mu séddale ko ba egsi si ki nga xamante ni mooy ki ci mujjee mujjee jot daal di basé wu ci xam-xam yooyu nag ak beneen xam-xam bu ñuy wax aljawda mooy lan qualité parce que am na ay normes am na codex am na dustur boo xamante ni mooy teg ay standard wax ne lekk bu nekk nii la war a mel pourcentage bi yëpp ci li lii moo ci war a nekk fii lañ ko war a ambale ambale nii lañ ko war a dencee nii lañ ko war a conseillé ba nga xamante ni du lor doomu aadama am na ay couleur am na ay parfum yoo xam ne dañ ko utiliser dafay lor doomu aadama ñu génn ko yamu ci foofu mais mu des nag lu ñuy wax almawaat almudaafa lil arziya mooy matière boo xamante ni dañ ko def sirisa te bokku si mu am ñaari parties yoo xam ne da koy jàngat parce que dafa bëri ay matières yoo xam ne ñu ngi leen di utiliser pour li ngay defar rafet li ngay defar am gu li ngay defar gudd fan lool mais tamit en même temps tamit day faagaagal doomu aadama dafay am danger ci santé muy ñëw di jàngat loolu teg ay liste yoo xamante ni daanaka booy consommer boo jënd dara di nga seetlu mu nekk ay code ay E cent vingt e deux 222 E 223 di wax yan matières yoo xamante nii mën nañ ko utiliser yoo xamante ni fa mu jugee dafa naturel du la doomu aadama ak yenn matières yoo xamante ni bu ñu ko utiliser mën naa la doomu doomu aadama léegi transformation boobu nag gannaaw ba ñu ko xamee mu ngi basé wu ci ñaar mu ngi basé wu ci lu ñu jëlee ci tool ba wala lu ñu jëlee ci gétt ga soit mu nekk loo xamante ni gàncax la ñu am ko transformé ko comme bu ñu jëlee par exemple rek euh, farine farine mu ngi jógee ci benn xeetu dugub bu ñuy wax bele bokkut si xeetu dugub bi nga xam ne Sénégal dañ koy farloo farloo di bay waaye ba tey ci dugub bi la la bokk ci lañ defaree mburu ci lañ defaree croissant ci lañ defaree pain au lait ci lañ defaree gâteau wa hakaza yépp benn benn suura bi lay am wala mu jógee ci ay fir bi fir bi tamit ca tool ba la la jógee wala mu jugee ci ay légumes beneen part bi di jugee ci xayawaan maanaam mu ngi jugee ci bàyyi mi nga xam dañ leen yar di jëfandikoo suwaat mu nekk seen soow wala seen nen wala seen ndawal moo xam ndawal bu xonq bi la mooy bi nekk ci xar yi ak bëy wi wala moo xam ndawal bu weex la moo nekk bi nekk ci ginaar wala boo xam ndawali géej la mooy bi ñuy jëlee si maxluqaat albahriya si ñaar yooyu lay lay basé woo léegi nag yamul rek ci jox nit ki satisfaire ko ci li soxla ci dund mais tamit dafa nekkaat benn place boo xamante ni lu gaaw la ci développer koom-koomu réew lu gaaw la ci yëkkati koom-koomu réew te dañuy gis ne chaque jour civilisation bu gën a mën a satisfaire ay peuple la mooy mooy civilisation bu gën a mën a am am doole parce que doole mu ngi commencé ci am dund ki nga xamante ni amul dundu kooku day dépendre day dépendance ci keneen te léegi toll na si jamono joo xamante ni kenn du la dimbale lillaahi wala rasulihi lu la dimbale rek am na leen lu tax mu mu dimbale ko donc mu nekkaat beneen point bu am solo ci sénateur al-Ghazaliya beneen bi mooy histoire bu ñu xoolee sinaat bu njëkk ba wala transformation bu njëkk ba egguloon fi mu egg parce que nit amut woon problème mu dund nit ñi dañoo équilibré woon ak nature bi fi nekk ak garab yi dañuy dagg ci garab yi lekk bay dund amuñu amuñu sax problème mu denc pour ëllëg parce que moment bu ñu toll daan am benn alimentation bu leen doy sëkk mais ñu dem ba saa gis ne nit ñi ñu ngi yokk mu am benn turu bu am diggante yokk yokkuwaayu nit ñi ak yokkuwaayu seen seen dund bi nga xamante ni moom la ñuy dundee loolu nag moo waral nit ki commencé di denc pour ëllëg fi njëkk indee méthode méthode bu njëkk ci transformation mooy wawal dara tey jii dara soo ko jëlee muy gerte wala muy dugub wala lu mën a doon nga weer ko ba mu wow soo ko dencee dina mën a dund lu yàgg soo ko bàyyoon bu mu tooy parce que su fekkee ne dafa tooy humidité bi dafay yéeg te humidité boobu maanaam ndox mi nekk ci biir dafay encourager bactéries yi ñu ñu attaqué ko parce que ñoom tamit dañ koy soxla pour dund ndox moomu su am duñ a duñ mën a dund ba ñu demee ba ci kanam. gis ne xadaara mu ngi gën a avancé maanaam civilisation yi mu ngi gëna avancé ci lañ commencé dugal transformation ci commerce mais commerce boobu tegutoon ci xaalis mais échange la doon doon da nga may jox lii ma jox la lii da nga may jox tiin ma jox la zeytuun wala nga jox ma naxil ma jox la aynab ñu koy changé seen seen diggante ba ñu demee nag ba ilmul xaris daal di ñëw ba ñu duggee ci xarnu taasir mooy 19e siècle xam-xam yi daal def benn révolution bu garaaw euh, gëstu yi yaatu ci lañ dem ba sénat euh, transformation yi yaatu dem ba nekk secteur bu mag a mag boo xamante ni dafay yëngu ci wàllu économie di waa di di di yëngu ci wàll euh, trans transport nga xamante ni suñu xoolee gereg yi ñoom ñoo njëkkoon a commencé di defar mburu di ko jëlee si benn xam-xam bi nga xam ne ñu ngi ko doon jëlee biir biir Afrique suñu xoolee tamit ba ñu xoolee ci dëkk yi nga xam ne dañoo féete woon côté bale jamonoy sedd dañ daan am problème pour génn lekk wala pour bay wala pour dund loolu taxoon na tamit ñoom ñu utiliser benn méthode boo xam ne dañ daan dañ daan dimbale pour ñu mën a am lekk fu ñu toll mooy at tajmid mooy former jël benn lekk wàcce degré tàngoor bi ba mu ba mu dem nekk ay moyen un wala moyen deux ba mu dugg ci moyen yi nga xam ne bu boobaa ndox mi nekkoon liquide dafay transformé mujj nekk solide nekk glace téye ko su boobaa dafay paralyser activité bactérie yi nga xam te mën na am ci biir su ko defee yaram su ko defee dund bi gën a gën a gudd gudd fan. ci lañ demee ba ci 19 siècle bi ci lañ commencé nag léegi di jël ay lekk di ko def ci ay weñ di ko kaste di ko tëj ba ñu ñëwee nag ba ci fin bi ci la benn boroom xam-xam bu ñu tuddee Louis Pasteur nga xam xamante ni benn xam-xamu benn boroom xam-xamu français la. moo njëkk a utiliser lu ñuy wax at taxmiir maanaam jëlee dara riza ci benn suura yóbbu ko ci beneen beneen suura comme ni comme ni ma junjoon sànq jëlee raisin def ko euh, vinaigre wala nga jël pomme def ko vinaigre wala nga jël tàndarma def ci vinaigre parce que dafa dem ba découvrir ne am na benn bactéria bu ñuy tuddee bactérial xal boo xamante ni dafay dafay mën a transformer sucre def ko acide ci la njëkk a indi foofu la njëkk a commencé application jël soow di ko woyal nga xam ne bu ñu ko jëlee pastara ko tàngal ko teg ko wàll ko def ci beneen soow boobaa dafay am day mujj changé wu jugee ci meew dem ci soow jugee ci lewetaay dem ci dem ci faroxaay loolu nag li ki koy def benn bactéria boo xam yàlla ko bind mais dafa bokk ci bactéries yi nga xamante ni dañuy jëriñ doomu aadama mais duñu leen feebar feebarloo donc ci gàttal euh, loolu moo nekkoon jaar jaaru sinaan ba ñu commencé méthode boobu noonu mu ngi nekkoon 1804 ñu demaat di demaat nag fi nga xamante ni gën na fa commencé waatee moo ci fin première guerre mondiale bi nga xamante ni nit ñi souffrir nañ xam nañ alimentation ban ban solo la am même armes yi ak soldats yi doon xeex xam nañu transformation dañ leen jàppale pour ñu mën a transformer lekk yi mu oyof ñu mën ko yóbbu di ko transférer seen camp yi mu mën leen jàppale ci xeex bi moo tax ba fin première guerre mondiale bi jeexee la euh, transformation gën a nag ubbeeku gën a. yaatu ba egg fi nga xam ne egg na fi tey ñu dem si suñ beneen tomb bi nga xamante ni mooy enjeu yi nga xamante ni transformation am na ko solo bi nga xamante ni am na ko suñu ñëwee solo yooyu bëri na trop wuute ne waaye dinañ ci tànn solo yi nga xamante ni mooy yu ñu amal solo si suñu wàll dundin social wala si suñu wàll koom wala si suñu wàll santé suñu xoolee Euh, secteur bi nga xamante ni moom moom la gën a transformation di gën a touché mooy secteur bay parce que fu mu fekk mbay da koy dundal parce que ju juñoon naa sànq ci ginnaaw ne moom mu ngi liggéey ci liy jógee ci mbay mi ak liy jugee ci yar bi ak liy jugee ci napp bi te ku nekk xam na ne mbay moo nekk base économie maanaam koom-koom boo xam ni mën nañ ko am bay moo ci ëpp parce que gisaguñ benn activité boo xamante ni dalay mën a génneel li la bay di génneel si barke boo xamante yàlla def na ko si nga xamante ni tey jii mën ngaa ji benn rek benn xoox xoox boobu mënoo xam ñaata la mën a juraat si ay xoox loolu amul benn activité boo xamante ni mën na lu lu noonu suñu xoolee euh, mbay mi daf ñuy génneel ay matières yoo xamante ni ay mën nañ ko consommer directement wala mën na am fu ñu ko jaarale wala mën nañ ko transformer def ci beneen soo koy consommer suñu xoolee yooyu yooyu dafay renforcer marchandise bi nga xam dafay nekk ci na ci nation bi nga xamante ni dañ dañ koy tuddee ak suuq al yi mooy si fi li nga xamante ni mooy marché dëkk bi parce que chaque jour waa dëkk bi li ñu defaree ci dëkk bi mooy gën a yomb ci ñoom pour ñu consa consommer ko ndaxte lii fii lañ ko bayee defaree ko fii jaay leen ko du bokk la loo xamante ni si biti lañ ko defaree muy benn nga xam ne foofu dafay am différence day am ci prix ci euh, monnaie yi même bu ñu ko doon jaayee comme ni ñu doon jaayee ci dëkk bi su ñëwee fii day cher parce que yi dañu am différence benn ñaar ñu transporter ko war ko fayal transport teg ko ci bato yi koli ko war ko fayal troisième bu ñëwaatee ba fii war a fayaat li ñuy wax jamaarik mooy impôt yi nga xam ne war na ko fay su boobu su boobaa sarge yi day dem ba day mujj cher par rapport ak loo xamante ni fii lañ ko liggéeyee bay ko fi du jaar ci étape yooyu yëpp su ko defee balaa muy egg ci consommateur bi du cher yenn yenn cher loolu dafa nekk loo xamante ni dafay gën a yokk mbay mi tey jii su fekkoon transformation am na soo daan bay tey jii nii benn tool mën ngaa bay ñaari tool ndax yow dangay ngay bay booju dem ci marché bi jaay benn client nga am mais su trans transformation amee ci dëkk bi yow di nga am client ki nga jaay ci marché bi dinga am borom usine bi nga jaay pour mu trans transformer mu nekk beneen yaatuwaay ku doon bay tonne mën ngaa dem ba 5 tonnes mën ngaa dem ba di tonnes wax ak beneen bi mooy aussi dina yokk wàll yar bi. tey jii ku ne xam na ne kii yar su demee bu bëgg a jaay day jël dalal dalal rek la am comme marché yóbbu xar yi mais tey jii su fekkoon transformation am na dina am beneen client bu bees mooy dina jaay koo xamante ni dina ko jaay ndawal ndawal boo xam ne da ciy defar luncheon da ciy defar duñ euh, ko ci waxee kon na bëf da ciy defar su son wax akaza parce que ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñu jugee ñu leen di ñu leen di changé waat mu nekkaat kon yaatal na marché mbay mi yaatal na marché yar bi kuy yar tey doo doo jaaxle pour jaay ko fenn ki nga xam xamante dafay bay tamit du am problème pour jaay ko fenn kenn du ko fixé fixé pris dina mën a jaay li mu mbay te ku nekk xam na ne mbay su yokkoo rek koom-koom dina dina yokk ci ci réew en temps tamit transformation tamit dafay régler problème bi gën a sonal dëkk yi mooy ñàkkum xëy te da koy régler ci anam bu doy waar parce que moom dafay soxla ki jàngul dara soxla na ki jàng tuuti soxla na ki jàng bu bu baax tey jii boo tegoon projet boo xamante ni dafa basé wu ci agroalimentaire di nga soxla ki nga xamante ni jàngul dara amul benn diplôme di nga ko mën a utiliser mu lay liggéeyal ki nga xamante ni jàng dafa am fu mu yem ko mën a utiliser mu liggéeyal ki nga xamante ni kàngaam la moom dafa nekk spécialiste di nga ko mën a liggéeyal kenn ku ne dafa am étape boo xam ne ci nga koy ñu ngi koy soxlaa kon touché na société bi yépp ba nga xamante ni dina mën a may xëy ñëpp parce que xëy gi dafa war a tasaaroo nekku ne ki jàng rek moo war a mën a am xëy parce que kenn ku nekk am na ay compétence naturelle yoo xamante ni mën nga ko jaay képp ko am compétence rek war na mën a am xëy su jàngee su jàngul ci sore ci sorewul yëpp war na am xëy bu tolloog niveau bi mu am ci ay compé compétence tey bu ñu jógee ci loolu en même temps tamit dafay def li ñuy wax nisbatu tadaxum mooy yokk bi nga xamante ne dafay yokk ci dund bi nga xam ne dañ koy tey jii ku ne gis na ne dund day yokk rek lu doon jar juróom bu subaa mën na jar fukk lu doon jar fukk bu subaa mën na jar fukk ak juróom wa hakaza loolu nag li koy wàññi mooy que ne transformation di am ñu mën a jël li ñuy bay di ko transformer nga xam ne du soxla ñu jënd ci biti parce que jënd ci biti bi moom mooy waral chaque jour dafay dafay cher parce que yow bu boobaa yow comme réew doo am mainmise ci fixer say prix doo ko mën a régler parce que marché mondial moo lay contrôler parce que marché mondial boo fa demee dañ naan ceeb li lay jar. mboq li lay jar gerte li lay jar foofu benn état am fa mainmise bu mën a régler par rapport rek loo xamante ni ci biir dëkkam la yam marché national la su boobaa dina ko gën a maîtriser dina ko gën a mën a organi organiser en même temps tamit dafa am lu ñuy wax auto autosuffisance la ñu koy wax n'est-ce pas mooy que ne autosuffisance alimentaire nga xamante ni dëkk bi dafay am euh, li mu soxla ci dund da koy mën a assurer te jii su nekkee dañ ne yi dañuy consommer chaque weer mille xar par exemple wala mille nag moom dina mën a assurer loolu cent cinquante tonnes ci ceeb dina ko mën a assurer foofu la développement réew di di commencer moom la ñuy wax ci olof mooy man sa man sa bopp nga xam xamante ni réew mi li muy soxla ci lekk moom mu ngi koy mën a bay boobu mooy première tànk bi deuxième tànk bi mooy nag nga am ba doyal ba commencer di jaay si si biti nga xam ne léegi yow yamatoo ci satisfaire sa sa local mais yaa ngi commencé di dugg di teg tànk ci biir marché marché mondial di fa jaay say produit en même temps mu nekk bunt boo xam ne dalay may nga am lu ñuy wax réserve ci monnaie étranger tey jii boo jaayee sénégalais bi CFA la lay fay mais boo jaayee ci biti dollar ngay fayeeku wala euro wala sax or nga xam ne loolu tamit banque centrale dañ koy soxla pour mën a am cëslaay ci ay ay monnaie yoo xam ne dañ koy bi téye ko denc ko da ko war a am ci monnaie étranger nga xam te ñoo gën a ñoo gën a am istixraar maanaam ñoo gën a am stabili stabilité parce que ñu ko utiliser ñoo gën a ñoo gën a bëri suñu xoolee tamit dafay dafay dagg buumu njaam parce que tey jii euh, ku ne xam ne ne Afrique li leen gën a sonal mooy lan colonisation mu leen gën a téye li ko waral mooy chaque jour dañuy dépendre si nit ñi c'est trop amul lenn loo xam ne ñoom ñoo koy defar seen lekk seen naan seen sol seen lépp loolu nag dalay day tax ki lay jaay daf lay daf lay koñe benn côté des fois mën na la forcer loo xamante ni dëppoo wut teg sa culture dëppoo wut ak sa aada dëppoo wut ak sa diine fan la ko teg parce que nit ki su xiifee rek du ñu wax beneen affaire donc moo tax côté bu am solo la si euh, point bu am solo transformation côté bu la ci point bu am solo la ci côté boobu noonu beneen bi mooy aussi dafa lay may stabilité politique suñu xoolee jamono jii nii dëkk yu bëri ñu ngi tiit ci loo xam ne dina manqué. Sénégal sax bokk na ci mooy lu mel ni fariñ parce que ñaari réew yu ëpp li ñuy produire li ñuy bay pele si àdduna bi mooy alqamh soo boolee ñoom ñaar li ñuy bay muy Ukraine ak Russie mu ngi toll ci 36 pour cent ci li àdduna bi yëpp di di bay ñu koy jaay bu ñu ko jaayee mu ñëw fii ñu jënd ko mu nekk fariñ fariñ boobu ci lañuy defal nag li nga xam lépp li nga xam ne dañu koy dundee te bi ci gën a fees mooy lan mburu par exemple instant bii nii ñoom ñaar bu ñu amee seen problème rek daf ñuy affecté parce que ñun dañoo dépendre si ñoom pour ñu jaay pele donc tey su fekkoon ne moment bii nii fekk na ñu koy bay di ko transformer fii kon du ñu am benn conséquence boo xam ne dinañ ko dund ci problème bu am diggante réew réew te kuy xool di gis ne tapasante bi ci dëgg diggante dëkk yi day gën a day gën a continuer problème bi am ci diggante réew day gën a màgg maanaam àdduna bi jubluwul ci yoonu dal ñaar dëkk yu bëri ñu ngi am ay conflits yoo xamante ni xam ne ñii suñu laalante wut ko jege balaa yàgg kon foofu li la ci mën a may jaamu mooy que ne yow nga régler li nga xam ne da koy soxla si sa biir di ko bay di ko transformer nga xam ne tey jii dañu yéen a dëkk yëpp am jàmm mais la xadara la su fa leen amoon yow du la du la doo si am benn problème beneen bi tamit dafay ubbi buntu export xam nga ñun daanaka dañuy dañuy importer rek te instant bii nii dëkk pour mu am xaalis foofu lañ koy xoolee li muy jaay ak li muy jënd nan la ñu mel su fekkee ne li dañu dañu équilibre ñu ne moom mu ci niveau bu normal su nekkee ne li muy jënd moo ëpp li muy jaay dafay wàcc rek moom lañu tuddee troisième mooy les pays troisième monde monde wala deuxième monde wala français di ko wax le mondes sous développement nga xamante ni mooy dëkk yu ndaw ndawaan yi nga xam ne dañuy màgg te ñun si lañu bokk suñu xoolee su fekkee ne moom tamit nag li muy jaay si biti moo ëpp li muy jënd kooku dëkk bu mag la mag la am na économie boo xamante ni jàll na daanaka balance économie wala égo économie mu ngi tourner foofu si li ngay jaay yow biti ak li nga jëlee si si biti te transformation day ubbi bunt boobu parce que yow soo bayee dara transformé ko mbay bi yokk na ngay transformé da nga dem ba gis ne yow lii nga amoon nii ëpp na di nga ko mën a génn nga jaay ko si si biti te jamono ji toll nañ si àdduna bi foo xamante nii façon marchandise boo mën a am ak nu mën a mel am na ku ko ku ko soxla am na ku pare pour pour jënd ko donc loolu lépp dafay sotti si suñu avancement sociale si suñu wàll wér ak si wàll industrie suñ demee ci wàll wér bi mu nekk point bu am solo ku nekk xam na ay produits yu bëree bëri yoo xamante ni dafay jur coow fii Sénégal wax yu bëri lay jur te ba léegi kenn mënu laa wax benn jàngat bu tegu ci science bu tegu ci xam-xam parce que li ci ëpp defaree wuñ ko fii defaree ko fii te xañ na ñun nekk nañ ci dëkk yoo xamante ni bokkuñoo dëkk yi nga xam ne dañoo xaw a sensible ci wàllu alimentation ba nga xamante ni tey jii boo leen di jaay dara boo fay dugal dara boto bi bu egsee du dugg day taxaw ñu dem jël ay échantillon am ay labo laboratoire contrôle qualité yu nekk ci biir te euh, port bi walla ci aéroport bi dem xool ko ba xam ba gis ne amul benn matière buy gaañe amul benn matière chimique boo xamante ni baaxul ci santé bu ñu ci utiliser amul ay pourcentage yu yéeg walla ay pourcentage yu yu wàcc su fekkee ne am na ko nga soo koy tamponné mu dugg ci biir dëkk bi mais daanaka ñun côté boobu dañ ci xaw a dañ ci xaw a oyofal tuuti parce que des fois sax da gis lekk boo xam ne da gis da nga koy gis muy traîner ci boutique doo xam fu mu jugee amul ndey amul baay amul maam xamoo sax fan la jugee da nga gis rek mu mu am turam di wër te loolu erreur bu mag la parce que lekk dafa dafa sensible mu nekk point bu jëm ci wàllu santé parce que suñu xoolee lu ëpp ci 360 feebar mu ngi dal nit mu ngi jógee ci li muy lekk. ci matières yu ñu utiliser ci ay matières yu ñu ci boole te bokk si ci tamit di bay di utiliser ay insecticides yoo xamante ni doo bàyyi ba moment bi ba mu war a jeex nga soo koy witti jaay ko nga xam ne loolu dafay nekk matière yu mën a gudd fan yu mën a yàgg ni muy ni muy nekkee ci légume bi wala mu nekk si fruit bi noonu lay nekkaat si yaramu doomu doomu aadama donc kon dana la gën a may mainmise nga xam li ñuy jaay si dëkk bi lan la li ñuy defar lan la parce que usines yi mu ngi sa biir dëkk bi moment bu nekk mën ngaa envoyé contrôleur mu ñëw mu ñëw xool moment bu nekk mën nga gis ku wàcc si standard bi nga tëj usine ba baa muy régulariser mais nag loolu doo ko man su fekkee yow da ngay da ngay dañuy jëndi kaste indil la doo man lu nga consommer directement te loolu am na danger bu bu mag a a mag donc si tënk loolu mooy enjeu yi nga xamante ni transformation am na ko si société bi ñu bëggee nag faram-fàcce enjeu yu am solo yooyu noonu yi nga xamante ni ñooñu gën a am solo mooy transformation dafay permettre ñu am ay alimentation yoo xam ne dafay am benn tarkib xaas mooy dañ koy composé composant boo xam ne dafa nekk composant spécial pour lan pour ñi feebar pour ñi nga xamante ni dañuy soog a jugee ci feebar ñooñu kenn ku nekk am na ay calories yoo xam ne moom nga war a consommer am nga loo xam ne loolu nga war a lekk da ngay nga mën leen a dafa defal leen seen lekk yu normal ak ñoom beneen bi mooy arzeetul atfal mooy lekk xale. Sénégal nag chaque jour dama koy wax dañu am habitude suñu taajee bool bi xale yi toog mag ñi toog ñu lekk jug te te noonu alimentation xale ak alimentation mag yamuñu li nga xamante ni xale da koy soxla ci ferñeent ak mag bokkuñu moo tax chaque jour dañu war a gën a bàyyi xel ci alimentation xale yi parce que dafa am ñoom lu ñu soxla lu ñu gën a soxla am loo xamante ni mag man mag soxlaatu ko parce que xale dafa toll ci moment màgg toll ci moment tabax ay yax toll ci moment tabax ay xel. li fa que mu am ay lekk yu riche yoo xamante ni dina mën a adopté ak li nga xamante yaram da koy soxla pour développement bi ak croissance bi nga xam ne da koy da def beneen bi tamit mooy transformation dañuy carrière ay lekk yu gën a simple lekk yoo xamante ni dafa gën a simple xale bi mën na ko lekk mën na gañe vitamines yi te ay développement am peut-être soriwul ay ay daamam saxagul amagu ko ji euh, biiram Euh, organ bi nga xamante ni mooy reesal ñam bi tollagu ci benn développement bi mais du ko tere dina mën a jot ci yenn éléments yu am solo dina mën a am ci yenn vitamines yu yu soleil transformation aussi dañuy permettre ñu mën a conserver lekk yi nga xam ne dafay gaaw a yàqu ñu def ko ba du gaaw a gaaw a yàqu am ay méthodes yoo xam ne moom la ñu utiliser moo xam dañuy jouer ci température bi wala dañuy jouer ci pH bi yéegal ko wala ñu wàcce ko ba nga xamante ni bactérie bu nekk am na pH boo mën a dundee te tamit yàlla ni bindee bactéria bu nekk am na wala microbe bu nekk parce que microbe moo gën a yaatu bactéria da ci dugg champignon duggu ci virus dugg ci moo tax utiliser baatu microbe sax moo gën a jug microbe bi dañu am dañuy nekk ay spécialiste mi microbe bi yàq gerte du yàq dugub bi yàq dugub du yàq ñebbe bi yàq ñebbe du yàq mango bi yàq mango du du du yàq orange donc kon dinaa xam man produit bi ban microbe moo koy attaqué ma jàngat ko parce que dafa am microbe buy nooy ak bu nooy daa am microbe boo xam ne saa yoo ko xañee ngelaw li moom pare na boo kastee rek du mën a dund am koo xam ne mën na nooy saa ngelaw loolu tuddee atanafus allah allah hawaa yi sans oxygène mën na kër créer benn méthode bu muy nooyee donc kenn ku nekk danga koy jàngat xam ko nga xam yow ban méthode ngay jaar ak moom ba nga xamante ni dina bàyyi sa lekk bi ngay defar mu gudd am fan fan fan fan wu gudd en même temps tamit dañuy permettre dara su amee si benn saison yu mën ko consommer ci saison saison am saison maanaam jamono ji mu am bu paasee dinañ ko mën a continuer di ko di ko mën a di ko mën a am loolu bokk na ci solo si nga xamante ni transformation ab na ko beneen bi aussi dana danañu moytul benn faute faute boo xamante ni dëkk yu bëri dañ ciy dal benn faute économie mooy ngay jaay loo xam ne da kaa soxla. par exemple baykat bi bay na ba nawet wàcc mu am fukki tonu gerte moom soxla na gerte parce que des fois dina togg mbaxal des fois dina togg euh, nu mu tuddati maafe euh, <laughs> des fois dina def loo xamante ni am na relation ak gerte day soxla diw bravo des fois day soxla diw léegi moom lii xel mooy mu xool moom lan lay soxla ci 10 tonnes yooyu noonu mu teg ko réserver ko à côté jaay li ci des mais xel nangul mu jël 10 tonnes yëpp jaay ko par exemple ba mu ko jaayee mu ko jaayee deux cent francs te leer na la nekk su ko jënaatee du ko jënaatee deux cent deux cent francs dina tegu dina tegu loolu nag si niveau baykat bi sax la gën a simple mais fi mu gën a danger mooy ci niveau état maanaam dëkk boo xam ne dafay jaay loo xam ne day toppaat ci ginnaawam jëndaat ko lu gën a cher pour indiwaat ko transformation dañuy moytuloo loolu noonu parce que boo xoolee monde bi toll na foo xamante ni matière première kenn jaayatu ko parce que tey nan nga jaayee gerte ba pare dem di jëndiwaat diw. bidon bi di di egg ci ay vingt-sept mille nan nga jaayee gerte ba pare nga demaat di jëndiwaat saabu nan ngay jaayee gerte ba pare nga demaat di jëndiwaat chocolat xel nangu ko sax parce que yow matière bi ñu koy defaree yow yaa ko produire yaa ko bay li étape bi gënoon a moo ñuy génne ko ci si def nga ko pare mu des étape bi gën a simple nga jox ko keneen mu def ko ñëwaat di la ko jaayaat kon yow yow boo analyser dëgg-dëgg yow kii ngay liggéeyal liggéeyaloo sa bopp parce que moom dafa toog bàyyi la nga bay ba pare. mu ñëw jënd ko si yow transformé ko ñëwaat jaar jaar si yow loo xamante ni yow xalaatoo ko see ko si am donc kon suñuy transformé fii di jël suñu gerte gi di ci defar parce que transformation moo mel noonu benn benn meññeef rek yàlla da ci da ci dañ ciy lu bëree bëree bëri gerte mën nañ ci defar diw mën nañ ci defar li gën a sonal yarkat yi mooy lan euh, aliment te ci ràkkal boobu lañ koy lañ koy defaree mooy source première boo xam ne dañ ko utiliser pour defar aliment mën nañ ko utiliser pour defar savon yi saabu yi ñu jënd mën nañ ko utiliser aussi pour defar diw yi nga xam dañ koy utiliser moo xam diw yaram la wala diw diw bopp la mën nañ ko utiliser pour chocolat yi nga xam dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy jëfandikoo mu nekk matière boo xamante ni bu am bu am solo boo xamante ni xale yi dañ ko bëgg donc kon transformation dañuy jàppale ci loolu parce que loolu dafay indil perte ci économie locale bi lay lay daane. beneen bi mooy at akul min salaamati ma yasirukul muntaj min naaxiya saxiya danañu permettre tamit ñu mën a gën a càmbar li nga xamante ni société bi da koy utiliser ci wàll santé sànq nee naa ci ginnaaw cent 360 feebar lu ko ëpp mu ngi jugee ci li nit di di lekk parce que tey jii boo xoolee ñun façon lekk yi ñu gën a jublu di ko gën a consommer lekk yooyu matière yi ñu koy utiliser du nekk lu nature tey ji da gis koo xamante day defar jus boo xamante ni amul sax lu lu lu toll ni xottu mango amu si day jël acide boole kook sucre boole kook couleur boole kook parfum boole kook gom togg ko ba mu ba mu jox la rataxaayu jus mu boole yépp yëngal ku la jox nga naan te fekk ni amul sax mu mu ne mu jox la parfum mango amul sax benn xottu màngo bu ci nekk loolu lépp ay matières yoo xamante ni la moo gën a yomb ci ñuy defar moo gën a gaaw a jaay mais dafa am ay danger ci santé doomu aadama parce que bu ñu xoolee am na genre lekk yoo xam ne dañ koy coloré c'est trop rawatina couleur yi nga xam ne dañ koy jaay dañ koy couleur sa trop couleur yooyu noonu dafa am benn ñaari matière bu ñu tuddee nitrate ak nitrite NO2 ak NO3 NO2 ak NO3 ñaari matières yooyu noonu bu leen tàngoor affecté tuuti dañuy changé wu nekk lu ñuy wax nitrosamine te nitrosamine mooy première matière bi nga xamante ni dafay indi sarataan mooy euh, cancer mooy première matière bi nga xamante ni moom la médecin yi enregistré ne mooy waral cancer te mu ngi jógee ci lekk yu ñu couleur yi maanaam dafay am couleur boo xamante ni nekkul couleur bu bu naturel des fois sax jus boo ko naanee pare tàllal sa làmmiñ bi di nga gis sa bi couleur bi da ci da ci des donc kon su fekkoon ñu ñoo koy defar di ko produire danañu dimbale ci ñu mën ko moytu transformation dañuy jàppale si ñu confirmer li nga xamante ni xam nga àddina bi ay borom diine yu wutee ñoo fi ñoo fi nekk sa lislaam la wala chrétien la wala beneen diine la am na si diine yoo xamante ni duñu lekk benn façon xayawaan soo demee Inde ñoom seen diine permettre ñu lekk nag te transformation dalay dalay exiger li ngay defar da ngay détailler li nga si def lan la su boobaa di nga ko di nga moytul nit ki nga tooñ ko si diineem. ndax di nga ne ko lii lii lañ ko defaree su fekkee ne loolu adopté na ak diineem mu lekk su nekkee adopté wul mu mu bàyyi ñu xoolee am na benn organisation boo xamante ni base am mu ngi euh, Turquie ak Amérique première base mu ngi Turquie deuxième base mu ngi Amérique mu ngi tudd munazamatu xalaal H A L A L munazam boobu noonu ñoom dañuy veiller ci lu mel noonu nga xamante ni sooy composé lekk composant yi nga utilisé li mu am da koy leeral ba bu amee cachet bi ñu xam ne ñii dinañ ko mën a consommer ñii duñ ko mën a mën a consommer euh, beneen bi aussi transformer transformation dañuy permettre ñu mën a aar consommateur bi parce que transformation su amee ci dëkk état dina mën a contrôler xam kii li muy jaay lan la jaay nag wala defar tamit njuumte it yemul rek si nga utiliser matière boo xam dafa am danger ci nit mais egg na si nga jaay nit ki loo xamante ni du am valeur alimentaire nga jaay ko dara mu jënd ko consommer ko te amul benn valeur aliment alimentaire parce que suñu ne aliment alimentation valeur alimentaire moo tax ñuy ñuy wax parce que su fekkee dafa soxla protéine li nga ko jaay amul protéine bu doy dafa soxla ay vitamine li nga ko jaay amul vitamine yu doy dafa soxla ay lapide lapide bi nga présenté ci ci ci ci étiquette bi ak nekk ci biir bokkut mais su fekkoon dafa am fii da nga am. mais mainmise pour contrôler loolu lépp parce que soo demee ci codex bi mooy permettre ne contrôleur qualité fu mu taxaw day am accès pour dugg fu nekk ci usine bi su ne salaamaaleykum am accès pour dugg fu nekk warul xaar ñu ne ko duggal fii wala bu dugg fii pour xool li ñuy defar lan la ak nan lañ koy lañ koy defaree parce que bëri na fii usine bu ne dañuy defar nangam par exemple ñu jël misaal usine bu ne dañuy defar mayonnaise boo fa demoon doo fa fekk xoolitu nen doo ko fekk bul xam lan la ñuy composé yëngal ko ba jaxase ko ba jox la nga lekk bu ko xam te loolu lépp su fekkoon ne transformation mu ngi dox normal loolu lépp dañuy dañ koy mën a contrôler parce que am na ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc si wàllu contrôler bu ñu ne jàkk ñam dañu xam ne lii dañ ko dañ ko changé wala am na lu ñu def ta te bokkuñu si tey beneen bi aussi tamit dinañu permettre ñuy jaay li ëpp tey ji boo demee si zone Daara Jolof bi wala ay Darma da ngay toll moment boo xam ne dañuy ratt nag yi rek parce que bu ñu feebar bu ñu leen bàyyee ak seen soow yi dañuy feebar dañ koy ratt di ko tuur parce que donc am nga ci am nga ci moment boo xamante ni meew am nga ci lu ëpp li ngay jëriñoo mais li ci des transformé ko meew mën nga ci am fromage ci ay façon xeetu fromage yu yu am yëpp mën nga ci am yaourt mën nga ci am mayonnaise au lieu li li ëpp noonu nga jël ko di ko di ko ñàkk ci beneen méthode mën nga ko utiliser ci côté boo xamante ni ban mën nga ko jëriñoowaat loolu transformation moo ñu ci moo ñu koy permettre en même tamit transformation dafay participer ci trans ci transport parce que tey jii nii su ma doon jël dara di ko jaay dëkk comme met ni ma ko bayee wala ni ma ko amee dafay diis te ku ne xam na ne booy envoyé dara ci colis yi par par volume ngay envoyé ak par poids li muy mais mën naa ko jël transforma transformé ko ma dindi ndox mi dina invité bi su ko defee poids bi dafay dafay wàcc loolu dina permettre di nga mën a jël ay dund ay transformé ko yóbbu ko ci bitti transporter ko yóbbu ko ci feneen sans mu lay lu lu cher en temps tamit dañuy xool ne euh, lekk yi nga xamante ni dañ koo defar transformer ko ñooy gën a yomb tuuti ci yi nga xamante ni mooy yu naturel yi kon suñ ubbee ba bunt boobu dinañ permettre ñi nga xamante ni ci société bi seen loxo eggul fenn fi di nga mën a sóoraale waale euh, état bi nga xamante ni fi la nit ñi ci la nit toll ci société bi seen état ku ne sa état bi nga nekk di nga mën a consommer li toll ak sa ak sa poche. beneen bi tamit mooy Sénat mooy transformation dafay toucher yeneen secteurs yi nga xamante ni da leen toucher pour ñu defar leneen parce que tey jii nii ki jënd gerte pour defar ci diw su paree dina am ñaari client mën na jaay ki nga xam dafay jënd diw mooy diw bu set bu bu ñu filtré bi pour mu toggee ko mën na jaay beneen diw bi nga xam ne mooy deuxième qualité bi kiy defar saabu mën na ko ko jaay kon. mu ngi dundal yematul sax ci wàll transformé mais mu ngi dundal beneen secteur boo xam ne secteur industrie rek lañ koy tuddee duñu wax industrie agroalimentaire mais secteur industrie mu ngi koy dundal parce que créer na ko benn matière première boo xam ne mën na ci basé wu pour defar defar leneen aussi tamit transformation dinañu jàppale su ñu mën a xam lekk bu ne lan la adopté parce que xeetu emballage bëri na am na plastique am na dénk am na armignon am na nickel am na weñ mais am na lekk yoo xam ne dañu am acide te acide dafa sawar mooy matière matière chimique boo xam ne dafa sawar réglé wul chaque foo ko teg du fa du fa toog dafay am relation ak leneen yeneen matières yu ko wër kon kooku erreur la nga jël ko nga jël ko di ko emballé ci weñ wala nga koy emballé ci armignon parce que da koy lekk da koy xoos te su ko lekkee armignon boobu da koy lekkaat yow sa biir yaram loolu mën na yëkkati benn taux ci minéraux yi nekk sa biir deret ji mu nekk benn problème parce que dañuy tudd loolu al maadin al dañu nekk ay mbel yoo xam ne dañu dañu diis nit ki waru ci waru ci consommer yenn yu bëri yi am na sax fu muy toll dafay yeta xaw ilaa summ day nekk lan toxine boo xamante ni mën na faak bakkanu doomu a doomu beneen bi tamit mooy que ne asinaat alxisaiya transformation dañuy permettre pour ñu mën a arrêter jënd yi nga xam ne dañu koy jënd ci bitti parce que li ngay jënd ci bitti mu lay coûter cher ngay dundal yeneen secteur su nekkoon da nga jëndee sa réew ci lay gën a yombee ci ngay gën a dundal yeneen yeneen secteur en temps comme ni ma ko junjee woon dañuy permettre pour ñu mën a am réserve ci bu doy ci monnaie étranger parce que comme ni ma ko wax rek banque centrale bu nekk pour mu tëgg xaalis dafay dugal li toll na ci xaalis boobu ci or wala si wala ci dollar te xaalis boobu tey jii soo koy jënd li ñu koy jaayee ak li ñu koy jënd day am différence bu mag a mag mais su nekkee ne yow da ngay da ngay transformer di jaay yow da nga koy am maanaam au lieu que ngay dem di jënd yow monnaie étranger da nga fay da nga koy am naturel naturellement mu nekk loo xam dalay dimbale rawatina li ñi gën a xam ñi gën a am effet si ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy gérer banque centrale yi effet bu mag la ñu ñàkk di ñàkk ay milliards pour jënd benn monnaie étranger te su nekkoon ne ñu ngi transformé di jaay mën nañ ko am naturellement parce que soo jaayee si biti rek marché mondial foofu beneen xaalis lañ lay fay te y xaalis boobu nga nga soxla beneen bi tamit dañu jàppale pour ñu gën a defar mbay mi gën a defar yar bi parce que tey jii di su may bay tamit mën naa gën a avancer gerte gi parce que gëstu dafa avancer mën naa def ay sélection yoo xam ne mën naa dem ba am gerte goo xam ne dafa may jox lu ëpp ci diw mën naa def ba xam ne daf damay am genre mala boo xam ne dafa may jox lu bari ci euh, nu mu traité meew. par rapport ak ñun suñ suñu suñu race locale yi ñu am mën nañu ko jël di ko sélectionné ak yeneen race ba mën ci egg foo xamante ni day am solo suñu trop beneen bi aussi euh, transformation dañuy jàppale si ñu mën a ànd ak yokk bi yokk ku nekk xam na ne Sénégal 1990 ak Sénégal 2000 tolloowuñ Sénégal 2000 ak Sénégal 2022 tolloowuñ dañuy gën a yokk su ma juumul yaakaar naa ñu ci ci cent seize million trois cent mille et quelque nit ñi nu ñu gën a yokkoo li ñuy soxla ci dund war a di gën a di gën a yokk su nekkee nag yow yaa ngi transformé moom da dalay da dimbale nga fàtte trou boobu nekk seen diggante si diggante yokkuwaayu nit ñi ak yokkuwaayu lekk bi dalay lay nga mën ko yéegal ñu mën a ñu mën a ànd en même temps tamit sénaat ya dañuy jàppale si ñu mën a ànd ak avancement technologie avancement techno technologie parce que tey jii boo duggee ci industrie danga nga da mu jamono ju ñu toll eh, mun a wax industrie mun wax industrie sans nga wax techno technologie loolu dina dugal technologie si suñu jàng dina dugal tamit technologie si suñu liggéey dinañu permettre sax ba ñuy découvrir lu loo xamante ni ñun xamuñu ko woon parce que tey jii nii bu ñu demee am na foire boo xamante ni dafa amoon foire Afrique la woon dafa amoon Soudan Sénégal ñoo fi njëkk a présenté lu ñuy wax confitir bu ñu defaree. màdd confiture bu ñu defaree di tax mu nekk loo xamante ni ba muy ba muy dugg ci produit yi ci turu Sénégal la la duggee parce que matière yooyu noonu amul wala firu yooyu noonu yàlla jagleelu ko ci yeneen dëkk yi ñoom la ko jagleel mais ñi ciy liggéey ñu ngi gëstu ba xalaat ne ni ñu mën a defee confiture ci orange nañu essayé xool di def seen gëstu ba xam ne bu ñu defee nii composé dinañ am confiture ci màdd dinañ ko am ci euh, di tax mu nekkaat loolu beneen yokkute boo xamante ni dafay jur dafay dafay ñëwaat si si si réew mi bi si mujj rek mooy que ne dana gën a jàppale réew mi mu mën a utiliser ay kàngam parce que dañ koy wax chaque jour jël nit di ko jàngal di ko fayal muy jàng di ko bourser ba mu jàng ba pare te lim jàng mënoo see jëriñoo loolu problème la parce que dafa mel da doon investir si ngelaw li kese parce que ki nga jël financé ko jaar la ko benn parcours war nga mën a war nga mën ko mën ko utiliser te su fekkoon ne bunt bi ubbi na dana bëri ñoo xamante ni ñu ngi leen di utiliser foo xamante ni la foofu du fa leen war a utiliser wala dinañ am njëriñ bu ëpp si njëriñ boo xam ne ñu ko doon xaar si si ñoom bëri na ay gëstukat yu bëree bëree bëri yoo xamante ni seen xam-xam dafa wàll dafa màcc si wàll transformation doon leen mën a doon leen mën a utiliser bi mujj bi rek mooy ñu permettre si ñu am lu ñuy wax at tatawur yi mooy développement industrie parce que léegi suñu xoolee dangay gis ne léegi bato yi nga xamante ni dañuy napp di transformer jën yi egg nañ ci tatawur foo xamante ni du jar sax ñuy déplacé wu usine bi lépp ci biir bato bi lay lay nekk ci ngay nappee ci ngay transformer da ngay génn rek yóbbu màdd bi nga xam dafa dafa jaayis te loolu mooy tatawur ak techno technologie parce que dafay benn comme benn escalier rek la boo tegee tànk ci benn di nga egg si ci beneen tey jii boo créé woon tey jii benn entreprise ut nga liggéeykat ñuy liggéey ci ci xeet yépp nag ku jàng ku jàngut ku jàng am nga lu yomb loo xamante ni wàcce nga ko wàññi nga loo doon jënd loo xamante ni mën nga ko ñàkk ñàkk jënd donc loolu mooy dernier point boo xamante ni ñu ngi ko doon wax ci enjeu yi nga xamante ni euh, transformation am na ko su ko defee balaa waxtu bi dañu dab rek ñu tënk ñu dem si suñu dernier point mooy jàngat bi nga xam ne dañ koy def si fukki pays yi nga xamante ni ñoo ëpp lu ñu investir ci transformation ak lan leen dugal ci biir ci seen biir économie boo xoolee dëkk yooyu ki ci jiitu mooy États-Unis États-Unis chaque jour mu ngi gagné lu toll ci soixante douze milliards six cent quatre vingt deux mille dollars ci transformation Allemagne moo jël position numéro deux mu ngi gagné trente quatre milliards six cent vingt huit mille dollars par an ci transformation ñu dem ci Bretagne. mu ngi génne ci cinq cent quarante milliards virgule vingt neuf dollars par an mooy troisième position Chine ñëw jël cent cinquante deux virgule vingt cinq dollars te Chine amul matière première si bay lu si ëpp fii la koy fii la koy jëndee lu si ëpp si réew Afrique la koy la koy jëndee Chine sax instant bii nii moo boo demee ribirigu gerte ci marché mondial moom moo fa tax moo fa taxaw pays africains yi ñoo fa nekkoon mais léegi arrière nañ bu yàgg yàgg yàgg yàgg léegi génn nañ parce que moom mooy jënd si ñoom ba pare ñëwaat yóbbu réew pour transformer ñëwaat bi jaayaat ci marché marché mondial te te bayul te bayam ci gerte demeewul demeewul noonu euh, cinquième position mooy France mu ngi am vingt quatre milliards virgule cent virgule cent quatorze dollars par an. Hollande moo jël sixième position mu ngi am trente ngi am vingt trois milliards deux cent soixante onze mille dollars euh, Japon topp si moo jël septième position mu ngi gagné vingt et un milliards virgule huit cent soixante dix dollars par an Canada topp ci huitième position di am vingt et un virgule cent trois milliards dollars ñu euh, Belgique topp si neuvième neuvième neuvième position mu ngi gagné quinze milliards virgule sept cent quarante mille quarante deux mille dollars ki ci mujj mooy Italie mooy deuxième position. mooy treize mille huit cent quatre-vingt-dix dollars donc bu ñu xoolee ne lii yëpp ay somme yoo xamante ni toll na ni ay budget pays africain yu mel ni suñ dëkk yi lii nii boo ko doon xool dëgg-dëgg ëpp na ay budget réew te lii benn benn pàcc bu ndaw la boo xamante ñoom seen économie da koy jur ci wàllu transformation te tamit li leen eggal fii ñun ñu ngi si ginnaaw en général ñoo koy bay matière première bi ñoo leen koy jaay maanaam si suñu mbagg yi lañuy taxaw pour kawe donc nag lii war na taxaat ñu gën a jéem a jublu ci transformation yi gën ko taxawal te tamit maa ngi di di leen wax ne leen laajul benn matériel bi commencement rek la la laaj matériel bi ak lu mu lu mu lu mu nekk matériel boo xam ne dafay dafa nekk matériel bu néew doole mën na defar mën na defar dara dara si si suñ gën yéeg tame yeeg yépp mën na mën na ko utiliser comme ay transformation donc lii moo nekkoon li nga xamante ni préparé woon nañu ko ci ci gàttal bi si. thème bi nga xam ne ñoon waxtaanee tey ci gàttal euh, di ñaan yàlla lépp li nga xamante te wax nañ ko fi mu am fi njëriñ ñu ñu jégalu bu baax nag ndaxte alio bi dafa gàtt trop ba pare laamit bi nag fasu lool xam naa ne waxtaan bi xam naa sant Diop donc ñu ngi ñu ngi continuer di leen remercier di leen sant di leen gërëm di am mbégte ci jotaay bi nga xamante ni bokk nañ ko encore di nuyuwaat suñu kilifa xalifatul am di nuyuwaat mboolem xalifa yi nga xam ne ñu nekk biir Sénégal di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay déwén yu bëree bëree bëri. Eh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëriñ Aboubacar Ibrahima Ndiaye ci arda wala ci waxtaan wu yaatu am solo wi nga xamee ne eh, amal ko mu jëm ci wàllum dundinu doomu aadama ci li doomu aadama di dunde naka lees ko mën a wëlbate wala naka lees ko mën a soppee ba mu doon loo xamee ne lu koy jariñ la ci wér-gi-yaramam lu koy jariñ la ci wàllum économie euh, lu koy jariñ la ci ab dundam euh, waxtaan wi am na solo lool lool lool lool dayo solo si foo ko dakk rek euh, weesu na ko mel na ni ñi teewu ci barab bi bu ñu leen xool jariñoo ci nañ ji lu bëree bëree bëri waaye wërta yam fii rek war naa egg ba ñi nga xamee ne ñooy yore wàllum réew mi ñooy yore réew mi ak ñi nga xam ne woroomi doole lañ ak woroom woroomi man-man woroomi xel ngir lii nii ñu man koo jëfee man cee bàyyee xel ba tax suñu réew mi fii mu nekk nekk réew moo xam ne daal sous-développé la ci réew yi nga xam ne yi gën a ndool ci àddina bi la bokk ci réew yi nga xamee ne demaguñ fenn séqeeguñ benn jéego ci lañ bokk ñu mën a fexe ba séq ay jéego yu gis néew egg ci développement ba ni ñuy eggee ci eh, ni ñu xëccoo ci àddina bi ndax tey ku nekk xam na ne eh, réew yi ëpp doole ci àddina mi ay Amérique ak ay Siin ak ni nga ko waxee ay Allemagne ak yu mel noonu demuwuñ dara dara dara lu lii nga doon waxtaane rek lii nga doon waxtaan rek lañ demee Siin rek doy na ci sëkk exemple réew moo xamee ne matière yi nga xamee ne wala ressource yii ressource naturelle wala matière yu gànjar yii suñu réew yi am Afrique yi am ñoom amuñu ko ba pare nekk deuxième wala troisième puissance du monde loolu du ay caaxaan ay gaz yi ñu am ay zircon ay or ay jamaa ñoom amuñ ci dara am na réew yoo xam ne dañuy bay sax te problème ndox dañ koy am te bokk nañ ci li ñu ëpp lu ñuy lu ñuy produit wàllu mbay te am problème ndox rek dañ koy am ñun nag am nañ ndox mu doy sëkk am nañ jant bu doy sëkk petrole baa ngi fi courant baa ngi fi euh, or baa ngi fi jamaa baa ngi zircon baa ngi fi lépp ngi fi waaye daal ba léegi mënuñoo dem li gën a yéeme nag ci yëf yi mooy ki nga xamee ne day taxaw ci say wagg di nga di ko jox li ngay dunde mu wëlbati ko yóbbu ko am réewam defar ko wëlbati ko soppi ko wëlbatikaat ñëw di la ko jaay ci njëggu gën a seer ga nga ko jaayee woon yow li nga xam ne moo nekkoon matière première yi li nga jële li nga jële gerte tey gis nga baykat yi bu ñu bàyyee ba bare commerçant yi nga xam ne ñoo jënd jëng ci wàllum gerte dem dajale ci gerte yépp ñëw bay jënd ko stocké ko wala ñu ñëw teg ko ci seeni oto suñu réew mi suñu état bi duñ ci duñ leen ci fay njëg gëñ leen ci war a fay gëñ leen ci war a fay tax buñ ko ci jaayee di ci ragal perte wala yu mel noonu tax mu jaral leen ñu denc ko ba siin waaye ñëw ñu jaay leen ko njëg gu ëpp gi nga xamee ne moom leen seen état moom leen état bi fayoon état bi nekk seenum réew fayoon bu ko defee ñoom ñu jaay leen ko ñoom jëm yóbbu ko lii ko wax yépp ñu mën ko cee defaree waxuma la jëmmi gerte geeg yi ñu ci defar ci ay diw ak ay yeneen ak yeneen xottu gerte rek ñoom duñ ko jël rek sànni ko xottu gerte yi nga xam ne ñun boo mën ci mbedd yi léegi moom ngay dox ñu tuur ko ci mbedd mi gone yi di ci fubale wala yu mel noonu ñoom ñu ko jël di ko sànni aliment yi ñuy def nii rek mënees na koo jëlaat transformé ko ba mu nekk loo xamee ne jur gi dañ koy mën a dundewaat mu dellusiwaat ci ci li nga xamee ne mooy delluwaat ci ñaar yi ñuy dunde muy diggante luy bàyyi ko ci jur gi ak luy bàyyi ko ci mbay mi ndax dund gi ci loolu dong la lépp lu ñuy dunde muy bàyyi ko ci jur gi ci xeetu yàpp yi ak xeetu soow yi ak yu mel meew yeeg yooyu wala loo xamee ne day bàyyi koo ci li ñu mbay te moo ci ëpp muy lujum yeeg euh, fruit yeeg yu ni mel yooyu yëpp bu ñu ko jëlaatee mënees na ko transformé waat mu nekkaat loo xamee ne lu ñu jariñu la rawat na nag fi nga ñëwee ci tomb laataa tomb bu mujj bi mooy solo si nga xamee ne euh, trans trans transformation am na ko transformation industrielle am na ko muy bi ngay tudd yi nga xamee ne moom la mën a jariñ réew mi ci ni mu koy aare ci ni mu koy développé ci ni mu koy mayee kaaraange ci wàllu wér-gu-yaram wax nga ko lu am solo réew yu àddina yi fi ne ni usines yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum euh, wàllum transformation da ngay gis léeg-léeg ñuy def ay documentaire di yàqalante ci seen biir kenn def benn documentaire war na masalan Cornebœuf ñu ngi koy defee jur masalan war la benn vidéo boo xam ne yow boo gisee sa xel du ko nangu du ko bëgg alors que ne kooku lim ci jublu mooy jubluwul lu du daaneel usine boo xam ne mi ngi koy defar wala benn société wala entreprise boo xam ne mi ngi koy defar pour que moom entreprise am mën a jug dem ca kaw yow nag nga toog ne dégg lijjantiwoo loola booy woo xel fu muy jugee defoo ci dara da ngay toog ñu jox la nga consommer ko boo demee suñu épicerie yi suñu bitig yi corne ba fi ci fees del del ci frigo yi ñu teg ko fa ñun ñoo koy ñu jëliwaay jëliwaay non seulement dañ koy jëlee eh, di ko jariñoo waat waaye niñ ko utiliser waat sax lay lekk du dëppoo ak suñu suñu wér-gi-yaram loolu dafay nekk loo xamee ne lu lu lu lu la loo xamee ne eh, da koy am transformation yi nag ni nga ko waxee munta am lu dul na daa ànd ak yeneen i xam-xam tudd nga ci lu mel ni chimique tudd nga ci physique tudd nga ci microscope bi euh, euh, micro micro euh, microbiologie tudd nga ci riyaadiyaat ak aljawda ak yeneen matières yi nga xam ne matière mu daat la yu yu opposé la ak yeneen ñu mën leen a boole ngir mu mën a nekk loo xam ne ñu transforme la jur benn matière bu bu jaar yoon boo xam ne nit ki dina ko dina ko mën di dundee kon daal ñu Euh, taxwil mawadd alxisaa'i day ci ñàkk ci sàggane ko day poser problème ci suñu wér-gi-yaram day poser poroblème ci suñu néewug lu ñuy dundee day poser problème ci suñu économie ndax boo defaree bare jël yóbbu ci réewum jàmbur réewum jàmbur defaraat ko ci beneen anam gu bokkut ak yow ga nga ko joxe woon gu gën indi laatal la ko jaayee la ko lu cher day mel ni nga jënde fukk wala nga jaayee fukk li nga jaayee fukk nga dem jëndewaat ko ñaar fukk loolu bénéfice amu ci njariñ amu kon mel na ni ci bàcc wàll gu ñu xool rek am na ci ni nga waat ci tàmbaliwaat bi ñëw wane ne moom alxuraan da cee da koo jàngalee wàllum science moo tax alxuraan eh, injaas gi mu nekk injaas eh, da ci da ciy feeñ ndax bépp xam-xam boo jël rek ci xam-xam bu mu mën di doon da nga cee mën a dellusiwaat alxuraan ñëw jàngaloon la ci loo xamee ne lu yàgg yàgg la lu yàgg yàgg la loolu Sëriñ Tuubaa wax naa huwa alkitaabu allazi aslul ulumi maan xam-xam boo mën di jël rek xam-xamu diine yi xam-xam yi jànge wàllum làkk yi xam-xam yi jëfandiku wàllum science bu mën di doon rek da nga gis ne alquran wax na ci loo xamee ne science ci jamono yu mujj yi la ko découvrir gi delluwaat tuuti ci ginnaaw gestu euh, alquran waxoon na ko bu yàgg tudd nga ci ay aaya yu bëri tudd nga ci aaya yi nekk ci suuratu Nahl aaya nga ci aay bi nekk suuratu Muhammad mooy euh, masalu jant lati wéeda mu tàquuna fiha anhaaru min maayi xayri asin ba egg tudd nga ci lu mel ni aay bi nekk ci suuratul insaan wa yasqawna fiha euh, ka'san kaana misaajuha zanjabilan euh, tudd nga ci aay yu mel ni kii bi nekk suuratul insaan ba tey aaya 5 innal abraar innal abraar yasrabuuna ka'san yasrabuuna min ka'sin kaana ni ko noonu allahu nuuru samaawaati surtout aaya boobu nga xam ne borom xam-xam yi taxaw nañ ci taxaw seetlu gu ama am solo jàngat ci ay jàngat yu yaatoo yaatoo yaatu yoo xam ne euh, def nañ ko ci kiimtaan goo xam ne kiimtaan na ko waaye rapport bi nga xamee ne amaan na ko ci wàllum transport industriel ci mi nga doon waxtaanee kon Serigne Babacar Ibrahim waxtaan wi am na solo lool lool lool lool lool jariñu nañ ci bu baax a baax xanaa di soññ suñu bopp ak di soññ ndaw ñi ñu ba ñam ci jàng théorie yi rek jàng théorie maanaam. Euh, daanaka lépp sax suñu jàng day jàng làkk ay làkk la jàng wala jàng xam-xam yoo xamee ne daanaka soo paree doo man lu dikk taxawaat di jàngale euh, moo tax li ko suñ benn waaye waxee woon bu toogee fii rek ki dem ba am doctorat ci arabe wala ci français bu dikkee lu muy doon imam lay doon wala professeur lay doon wala oustaz lay doon daanaka ñun amuñ benn usine boo xam ne dañ naan suñu doomi réew ñoo jàng ba pare wër du ko di ko defar poussé sax dañ koy jéggaani bic dañ koy jéggaani kayit fooy yii sax mënuñu koo defar kon loolu lu doy doy la waaye nag mel na ni léegi jigéen ñi ñu ngi jéem a góorgóorlu di def ay effort lu mel ni ay jus naturel gis nañ ne léegi ñu ngi ciy jéem a def effort bu yaatu yaatu yaatu ba ku nekk ñu ngi ciy jéem a def sa bidigu bopp sa entreprise su bopp di ko di ko transformé waat loolu am na solo lool ñu bañ koo kii bi ngay tudd gerte sama sama xel daa nekk ci nukaar moom ci lu am solo la ci gerte kon daanañ ko bàyyi xel moom it lu ci njariñu gerte la bokk kon waxtaan am na solo yàlla na yàlla xëy xamatuñ ko defaratuñ ko niñ koy defar sax xamatuñ ko jël ko jël sukkar si jiital ko def ci yooyu noonu dafa am solo kon suñ Babacar ñi ngi lay jëfal bu baax a baax baax yàlla yàlla barkeel xam-xam bi te gën kaa yaatal fi nga ci bëgg egg ñu egg ci ñu mel ni yow réew mi dañ leen di soxlawoo bu baax a baax a baax a baax xanaa dañuy jox sëriñ Fallou rek mel na ni ñàkk sëñ Ousseynou sëñ Ousseynou mi ngi junj muuraake <laughs> sëñ Ousseynou sëñ Fallou du ñàkk sëñ Basirou moom def ay kàddu commentaire di fàttali rek ne suba incha allahu taala waxtaan euh, waxtaane day wéy di amaat ba ci ñaar fukkeelu fan bi ak juróom-ñett ci bis bu ba suba nag inspecteur seex Mokhtar Lo moo ñu koy defar moo war ñu ko defal ci manahiju dirasiya wa darurata tatawuriha yoon yi nga xamee ne ci li ñuy jaar di jàng ka jàngale ak euh, avancement ak développement bi nga xamee ne moom koy moom koy am di jox diggéen suñu di fàttali rek ne téere bi fii ci daara kamil maanaam gëstukat yi war na di fi ñëw di fi sonn yu baax am na ay téere yu fi nekk yu cosaanu yoo xamee ne daanaka sax amatuñ ko boo ko doon wër doo ko am te boo dikkee na koy fekk li sëriñ bi doon waxtaane dangay ñëw mu ñëw yaatal ci lool lool muy alxisa alxisa la la dawa euh, docteur Sabri al Xubbaani moo ko moo ko def am na solo lool lool lool lool ci man cee delluwaat ci gëstukat yi ak jàngalekat yi di leen jox dig daje ba suba ak jàmm kon Serigne Fallou bismillah jërëjëf euh, Serigne Cheikh euh, Talib ci intervention bu am solo boobu xam naa pour njëkkanteeg waxtu yi rek jox Serigne Bassirou Diatara bu ko defee contribution ci waxtaan bi boo ko defee ñu doog a jàllale ci programme bi sëñ Basiru bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci sa tur ak ci sa sant di leen dalal jàmm ci barabu bu tedd bi di leen siyaare ci weer wu mag wi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mottali ñu ko ak jàmm te ñu jaamu yi ñu ciy def yépp di ñaanal Cheikh Mouhamadunil Muntaxa sunu borom bàyyi ko fi sàmm ko ba li mu bëgg a liggéeyal islaam yépp mu liggéeyal ko ko di leen nuyu ak dalal ci barab bi ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha Diatara mi nga xam ne mooy kilifa barab bi di bég bu baax a baax a baax ci seen teewaay di jël kàddu gi nag ngir sant oustaz Abou Bakr Ndiaye Abou Bakr Ibrahima Ndiaye di sunu mbokk di sunu xarit ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne bi def na ko ci anam woo xamante ne bi euh, kawe na suñu njort wax dëgg yàlla li liñ doon séntu ci waxtaan wi yépp mën nañoo wax ni am nañ ci lu kawe njort te lu mel nii rek moo taxoon ñu tànn ko barab bi day barabu xam-xam doon barab boo xamante ne bi dañ fee war a fësal xam-xam moo tax bi ñuy tànn thèmes yi ñu gis ne euh, thèmes yi war dañ ko xeetale ba nga xamante ne bi dana gën a am njariñ comme fii ay élèves ñoo fiy ñëw ak ay gëstukat euh, ñenn ñi am nañ capacité mën a liir yenn livres yi mais am na ci ñoo xam ne seen niveau àggagul fenn fi kon war nañuy organiser lu mel nii di leen euh, xëcc seen loxo di leen wan yoon yi ba ñu xam ne kat lii ñu nekk muy gëstu xam-xam lu am solo la. moo tax oustaz Babacar ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci waxtaan wi ci niveau bi nga ko indee ci leeraay bi macha allah ak ci yaatal gi am na solo lool euh, yaakaar naa ñi fi teew ñëpp jariñu nañ ci. ñu fi teew ñëpp tamit bi nga waxtaanee ba noppi gën nañoo xam solos transformation ak euh, euh, alimentaire gën nañ koo xam gën nañoo xam tamit bi nga waxtaanee ba noppi fan lañ ci toll ñun kenn ku ci nekk bu mën na natt ba xam suñu réew mi fan la toll ci wàllu goog yi bu ko defee bu bu boobaa la cay des nag bu ñu xamee fan lañ ci toll mooy ñu gën a euh, yeesalaat pësteef yi gën a yeesalaat jéego yi ba gën a mën a jëm kanam bu dee élèves yi jàng. ñu xam ne li mu doon waxtaanee muy transformation d'abord li mu njëkk laaj mooy xam-xam kon ñoom war nañoo gën a bàyyi sa xel ci njàng mi ñu nekk ñu gën a xóotal gën a xool matière yi nga xamante ne bi moo leen di permettre bu ñu amee baccalauréat bëgg a def domaine bii ñu xam yan wàll la ñu war a xereñe ba man caa jëm loolu laaj na ko ndax kenn munta wax transformation te waxoo njàng loola nag la muy laaj tamit mooy ñi yor wàllu njàng mi war nañuy gën a xam ne xam-xam bi li mu laaj war nañ ko cee gën a jox ci ay moyen gën a dooleel école yi gën a dooleel jàngalekat yi ba xale yi ñu xëcc leen ci wàll gi nga xamante ne bi moo ñuy indil développement développement benn côté rek du ko indi ku bëgg développer fokk nga ko aspect yi nga xam ne moo làmboo développement yépp benn bu ci nekk da nga koy jox yitte bu fekkee dañoo yittewoo diine rek yam ci muy julleeku woor ak natt asaka ak yooyu te yittewoo wuñ wàllu liggéey yittewoo wuñ wàllu xam yeneen domaines yi yittewoowuñ ko boobu waa suñu jëm kanam day sooxe looloo tax daara ji bu ñuy tànn thème yi ci koor gi ñu koy tànn ci anam yu wuute yenn yi jëm ci wàllu diine yenn yi jëm ci wàllu social yenn yi jëm ci wàllu santé yenn yi jëm ci wàllu économie euh, ngir bëgg a wane ne lislaam euh, diine la joo xamante ne bi diine ju matale la doonu diine joo xamante ne bi rek dafay nekk comme ni ko ñenn ñi déggee jàpp ne eh, julli woor ku eh, sàcc ñu dagg loxoom ku njaalo ñu rey ko yooyu ay aspect la yoo xamante ne bi xëy na ñi bëgg a tilimal derub lislaam ñooy jël eh, côté yi nga xam ne côté yu nuru lu négatif la ñu koy wane ci côté boobu ba nit ñi di ko ragal waaye lislaam ku ko xam da nga xam ne diine la joo xamante ne bi doomu aadama moo ko tax a jóg teral doomu aadama moo ko tax a jóg ñëwut ngir toroxal doomu aadama ñëwut ngir xeñ doomu aadama bànneex ñëwul ngir xeeñ ko lu naqari ci àdduna safaan bi moo ko tax a jóg mooy dafa ñëw ngir bëgg nit ñi nekk gi nekk ci àdduna ñu mën cee nekk nekkin wu neex nekkin woo xamante ne bi nag duñ fi nekk rek ba jàpp ne ay matériel rek lañ waaye beneen aspect bi nag muy wàllu ruux gi tamit day bañ ñu négliger ko moo tax toujours lislaam day bëgg lu équilibré loolu kon buñ ko xamee dañu daal xam ne kon l'islam diina ju am solo la looloo tax daara ji saa buy tànn ay waxtaan ci jamonoy koor gi ak ci jamonoy màggal gi ñu fexe bay jéem a euh, jël aspect yépp mu làmboo ko moo tax euh, oustaz Babacar tem bi mu indi ñu tànn ko boole ko ci waaye alhamdulilahi rabbil alamin li taxoon ñu tànn ko wax dëgg yàlla wane na ko ci ci ci ci anam bu kawe njortu li ñuy def mooy ñaanal ko sunu boroom gën koo taxaw gën koo sàmm ba ay moroomam yi mel ni moom te nekk ci biir dëkk bi ñu découvrir leen xam leen ndax dëkk bii kat euh, ci muy Sénégal laa bëgg a wax lu bari mi ngi fi ci wàllu expertise ci wàllu xam mais jafe-jafe bi ñu am rek mooy xëy na ñi nga xam ne ñooy dirise mën a découvrir loola ba mën a wammat loola génnee ko teg ko ci euh, kaw bañ jariñoo ko loolu rek moo des te loolu nag bu amut pour ñu développer dana dana jafe lool kon loolu tamit war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu fexe ba expertise bi nekk ci biir dëkk bi ñu génnee ko jariñoo ko fexe tamit ba développement bu ñu ko bëggee ñu defaraat xelu nit ñi ba nit ñi changer mentalité ba ñu xam ne développement du lu jafe lool li mu laaj rek mooy pësteef pësteef la laaj pësteef pësteef bu amee mooy tax kenn ku ci nekk wàll gan ca mën a taxawee doo ko xeeb dëgg la état am na ci yoo xam ne moo ko moom la war lu mel ni transformation bi ñuy wax nii am na ci wàll yoo xamante ne bi ci wàllu matériel ci wàllu technologie lu ci bari état la war waaye nag am na ci yu yamamaay yoo xamante ne bi nit ki bu defaree boppam am pësteef am gëm-gëm bu boobaa mën na caa andi wàll yu ama am solo yoo xamante ne bii moom ci boppam sax mën naa pousser état ci état bu fekkee naru naru woon a def loola moom ci boppam mën naa pousser état sax nit ñi bu ñu changer seen mentalité fexe bay jéem di def mën nañoo pousser état bu boobaa fu état bëggutoon a dem mu dem fa far force mais bu fekkee nit ñi dañoo toog di seetaan toog naan état état état te ñun ñooy état bu boobaa tamit bu fekkee dañoo am njiit ñoo xam ne xëy na bariwuñ xel lu bari seen bopp xëy na moo leen gën ñor boobu boobaa tamit fii ñu nekk rek la ñuy nekk kon développement bi ñu bëgg il faut ñun ñu soppi ko fexe ba pousser état ci développement boobu ci wàll yépp ci ni ñu ko bëggee ñun ñu fexe ba ba ba pousse ko ci moo tax euh, oustaz Babacar ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di sant ñi fi teew ñëpp moo xam jàngalekat yi la professeur yi fi yëpp gis nañ leen ñu ñëw assister waxtaan wi moo xam ñu jógee Kër Mbay la moo xam ñu jógee fanaan la ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di sant élèves yi tamit di leen xamal ne euh, fii seenu barab la biñ ko fi def li taxoon ñi def ko fi rek mooy bëgg nit ñi di fi ñëw di gëstu xam-xam eh, di échangeante kenn ku ci nekk la nga am nga indi ko bu ko defee sa morom man cee jariñu lool rek moo moo moo tax a jóg barab bi ñoo ngi leen di santaat bu baax a baax wax ci turu sëñ Moustapha eh, di sant oustaz Babacar bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ok jërëjëf eh, sëñ Basirou ci kàddu yu am solo yooyu ñu indi loon di profité rek di sant ki nga xam moo amal conférence bi muy professeur Babacar Ndiaye. ku mel ni ku fi teew rek ñu nga fi ndax waxtaan wi am na solo lool lool di sant suñu Cheikh Tall mi nga xam ne moo ko doon modéleel am naa pour euh, ni ñu ko baaxoo amale rek mooy euh, ci jamono mel ni saa bu ñu amalee waxtaan dañuy koy darajaale benn école école bi ñu ko dara darajaale nag mu mel ni mooy école sëñ Abdou Khadir Mbacke nekk Daaru Manaan directeur bi nekk sëñ mbay xam naa pour njëkkanteeg waxtu rek yokk kàddu gi bu ko defee mu mu indi contribution bu ko defee ñu jàllale programme suuf bi allah. pour fàttaliwaat euh, conférence bi comme ni ko euh, euh, sëñ Cheikh si la waxee lu luy concerné yi ñi fi teewal xëy na comme ay jàngalekat suba ñi ngi war a waxtaane programme scolaire bi nekk fii nii ci suñ système éducatif bi ni muy doxee ak ñu ko war a jëmalee kanam maanaam jëmale ko kanam dafa doon lu munta ñàkk ci jamono jii loolu yaakaar naa dana soxal jàngkat yi ak élèves yi ñu ngi leen ci invité bu baax a baax ñu bàyyi ko xel mooy système éducatif bi moom la ñuy waxtaane suba incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di balu xaq tey bal xaq ñépp di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala li ñu fi dégg ci ay kàddu lépp lu ci am njariñ yàlla nañ ko yàlla kàttanal ba ñu mën koo jëfee ci mbaaxu ak si Abdul Xaadim Mbàkke Euh, xam naa dañuy santate yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di gërëm mbokk yi ñu fi fekk ci invitation bi nga xam ne invité nañ ko école franco arabe Serigne Abdoul Khadim Mbacké yaakaar naa du tey la jëkk loolu yëpp nag dafa am lu muy wane rek mooy yittewoo gi nga xam ni mbokk yi nekk ci barab bi yittewoo nañ ko xam-xam ak bëgg a jàppale guñ bëgg jàppale gone yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi di gëstu xam-xam waaye itam ak yee ak wan yoon jàngalekat yi nga xam ne ñoo yoree école ci biir dëkk bi di ko jàngale nu ciy sant yàlla bu baax a baax di ci wane suñu mbégte di ci wane itam suñu contentement euh, xam naa itam di wax ni euh, gone yi nga xam ne yéen a nekk ni di euh, élèves yi nga xam ne yéen lañu invité barab bi moom li ko tax a jóg leer mbokk mi leeral na ko léegi mooy tasaare xam-xam ak wane ko su ko defee kon buntu la boo xam ni kenn ku nekk ci yéen war na fi man di jaar di yokk xam-xamam ni nga xamante ni ñun jàngalekat yi noonu lañ fi ñëwee di xool yenn téere yi di ko liir di ci gëstu yaakaar naa itam yéen la gën a war jàpp na ni war na nañu waaye itam yéen war na leen ndax da ngeen a toll ci di ko wut kon bu leen ci tàyyi benn yoon École Sëñ Abdou Khadre nag mu ngi fii ci Touba Darou Manane ci euh, arrondissement bi nekk ci quartier Darou Manane ci njiitul Serigne Mbacke Dabassar mi nga xam ne mooy xalifa ba école bi ñu ngi ko fasañ ci 1996 ba léegi yaakaar naa itam am na ay jéego yu bare bari yoo xam ne jot na koo dox waaye teewul ñu ngi fu ñu toll noo ngi tàll sunub loxo ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal dëkk bi ñu di ay jàngkat ak jàngalekat ci li nga xamante ni mooy yokk xam-xam mooy yokk niveau mooy taxa itam li nga bëgg liggéey nga mën koo liggéey mu jàll noo ngi ci tàll suñu loxo ñëpp ñu ci ubbeeku la ñu itam nag xam naa suñu cant nag dañ koy jëme ci sëñ Baara mi nga xam ni ginnaaw yàlla euh, su suñu invité fii moo moo ko dox bañ xam na kon noo koy sant bu baax di ko gërëm di jégalu bu baax a baax nag xam naa yëf yi moom daa doon lu xaw a bett ba nga xam ne ni ñu ko war na waajale sax waaje wuñ ko ni nuy jéggulu nag ci tarde bi ndax heure bi ñu fi war na agsi agsi wuñ ko fi li ko waral itam mooy ñàkk mooy ci wàllu transport bi eh, bëccëg yi oto yi dañ dul eh, yomb noonu loolu moo tax ñu tardé waaye ñoo ngi sant yàlla di sant Serigne tubaa di jéggulu bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di sàkku nag ci mbooloo mi fi nekk ñëpp nañu ñaanal suñu tuut tànk yi ñu àndal ba li nga xam ne moom la seeni waajur di séentu ci ñoom yàlla suñu borom ak Serigne Touba dimbali nu bañ am ko ñoom loolu rek mooy suñu mébét suba ak ngoon guddi ak bëccëg noo ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex ku fi waaxu ba agsi yitte joo fi indaale yàlla na ko sëriñ tubaa faj soxla soo yitte woo yàlla na ko sëriñ tubaa teg joo fi indi yàlla na ko sëriñ tubaa saafara ci barke xaadim Mustafa barke sëriñ Abdul Xaadir wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ Mbay ci kàddu yu am solo yooyu euh, ba tey wane rek euh, solo si nga xam ne waxtaanu amoon na ko mu mel ni tamit am na Baye Mbaye Diouf mu war indi benn commentaire bu ko defee dañ koy yéegal bu ko defee mu indi commentaire am Baye Mbaye Diouf bismillah wax salaamaaleykum wa xam naa dina jafe lool ñu def commentaire bu am solo par rapport ak ki nga xam ne moo doon man waxtaan bii di Oustaz Aboubacar Ibrahima Ndiaye thème bi dafa matale mais dafa am lu loo xam ne je pense que ñëpp mën nañ ko bokk ñu xalaat si déjà bu ñu fàtte arabisant moo doon wax moom benn connotation boo xam ne réew mi da ko yàgg jox arabisant jàpp ne jàkka ja jumaa ja jullee new tudd doom tey ñu amal jotaay boo xam ne ki ñu koy waxtaanal mu laal aspect typiquement scientifique loolu day révéler ne système éducatif sénégali bi dëgg-dëgg système bu ñu war a xoolaat la d'ailleurs damay nettali toujours anecdote su may jël exemple classe di wax ne on a système éducatif boo xam ne su fekkee nit ñi jàppuñ ne jot nañu changé ko mooy ba tey nañ gëm ne si ay caaxaan rek lañ nekk ñàkk liggéey bi am si réew mi nañu di ko jooy te koo wax mu ne la maa ngi ak master waaye loo man dara ñoo ngi am système éducatif Sénégal boo xam ne peut-être li xew tubaa élèves yi di xaw a sotti ay classe sa xaw na exceptionnel mais boo toppee système bu normal nga xam ne da ngay dugg CI ba master 2 18 ans nit di ko jàng Sénégal soo paree loo man ñu ne la dara tey ñu am koo xam ne yàlla def na Égypte la jàngee mais lim ñuy wax da ngay xam ne du phase théorie côté pratique dañoo dëkk dëkk nañ mu jëflanteeg suñu ay soxna si du ñu defee transformation ci ay jus nga xam ne phase bi nekkul kese phase théorie mais si côté phase pratique bi effectivement lu ñu gëm la di ko dund loolu nag dafa jot mu war ñu yee war yee suñu ay autorité mais malheureusement li ñuy wax du loo xam ne dañ ko umpale ñoom lu ñu xam la mais volonté politique moo manqué te volonté politique boobu nag aussi yaa oustaz junj ne ko léegi dañu bàyyi toujours di xaar état si yenn man war nañu xaar ku mel ni oustaz Boubacar Ibrahima Ndiaye ñu créer ay genre centre de formation professionnelle surtout que domaine la boo xam ne soxlawul nit ki jàng ba am diplôme nit ki na am volonté rek tey bëri na ñoo xam ne raté nañ école et nañ bàyyi di gëmloo nit ñi sax ne école rek la ñu war a tekkee loolu njumte bu rëy a la am na koo xam ne soxla na bu jógee daara ja nañu am benn centre de formation professionnelle bu mu war a mën a insérer liggéey si transformation li ñu wax ni lu ñu mën la exemple demal Touba te boo demee si usine yi defar ay diw da ngay gis ne volonté am na fa li fa amul rek mooy matériel ak ñu leen wan yoon bi ñu war a mën a jaar dem nañ ba suñ niveau de complexité yegg na si man mi sax bu may jënd diw li may laaj mooy ndax bii du segal déjà maanaam bu nekkee segal li may bëgg mooy dama ko fay bëgg a bàyyi loolu comme si comme notion de complexité bi laay wax li ñu defaral suñ bopp toujours dañuy gën dañuy gëm ne lu jógee feneen moo ko gën te loolu question de transformation bi ñu doon waxtaanee mën na si régler lu bëree baree bëri problème emploi nit ñi aussi bàyyi di sol costume cravate rek jàpp ñu war a dem yor créé taxaw di jàngale transformation war na tax aussi mu décomplexé nit ñi ñu toog di yore seen entreprise dem nekk village liggéey ci gerte man di ci defar diwlin man di ci defar leneen ak leneen ak leneen volonté politique boobu nag xanaa ñu ñaan yàlla parce que barab bi barabu barabu ñaan la mais ñu ngi am mbégte bu baax maa ngi tuub maa ngi jégalu <laughs> di leen jafe torop ñu joxe contribution ci tam bi ak ci boro borom xam-xam yi fi teew maa ngi tuub asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah suñ euh, professeur Babacar Faye maanaam am na solo lool lool lool maanaam war a importance nga xam ne waxtaan wi doon nañu ko amal mu mel ni euh, perspective day daal di ubbeeku si ñëpp képp koo xam ne teew la nga waxtaan rek daa nga ci mën a sof say xalaat tey mu moo a jëm kanam am naa pour euh, njëkkante waxtu julli rek ñu fàttali leen suba programme bi mel ni suñu bas fàttali na ko ci wolof mais dañu koy fàttali en français rek incha allah mooy le registrement dans nos programmes scolaires dans nos instituts arabo-islamiques franco-arabes en vue de répondre aux aspirations de l'environnement de notre milieu scolaire comme ni ko suñ bas waxee rek suba incha allah rabbi ay jàng ay jàngkat ñu fas yéene ñëw ànd kook ñun di profité tamit di sant baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi ko doon bàyyi xel fu nekk ñu ngi fay woote di wax ne waxtaan am na solo lool mu mel ni réseaux sociaux yi fi ñu ko baaxoo toppee yépp ku nekk yaa ngi envoyé message di wane ne waxtaan am na ko kon encore une fois de plus ñu ngi sant bu baax professeur di ko ñaanal ba yéen mu am mu man koo eggalee te ànd kook ñi mu ko war a àndal ñëpp bu ko defee dañuy taxalu ba suba ak jàmm incha ñu taal loxo yi sëñ Basiru ñaan ba suba ak yaa